ñu daal di koy doore si kaddu yi nga xamante ni avocat français millier daal na koy yëkkati nag daal xamle ni jamono ji dafa leen a daal ci lu ñel nag passage bi nga xamante ni daal woon na fii ci réew ma Sénégal ngir nag daal défendre kii di leader bu Pastef ci naka noonu tamit ay victime de crime contre l'humanité mu daal xamle nag ñooñee jamono ji dañ leen a daal di te nag deful ñu benn acte boo xamante ni rek war a ñu daal di leen a teg loxo ba tey nag ci ay kàddu moom maître Juan Branco daal di xam ne ni ci ñooñee ñi nga xamante ni jamono ji sax daal nañ leen a teg loxo am na sax ñoo xamante ni musula gisante ak ñoom moom mi lee di fàttaliku nag dafa ñëwoon fii ci réew ma Sénégal daal di woon a jaare ci frontière légale mu daal di jàkkonte ay jafe-jafe waaye nag mu daal di xam le ni ci yoonam boobee daal nañoo jàkkonteek benn officier gendarme boo xamante ni rek def leen stoppé woon nag waaye tamit ñu daal di leen accueillir si jàmm ak salaam partout mu daal di xam ci am na ay agent yoo xam ne rek ñoo ngi woon ci frontière bi ñoo xam ne dañu doon taxaw rek ngir rekk daal di am ak moom ay photo wala sax mu daal di xam li nag ñooñu ñëpp dañoo daal di wone rek ñu daal di taxawoo te mu daal di nekk seen wet moom maître Juan Branco nag mu daal di xam li ni jamono ji ñu dëcc nit koo xamante ni moom musul xamante ak moom ci ay mbiram looy nekk loo xamante ni rek nit mënu koo nangu waaye nag mu daal di xam li ni dinañu daal di rendre si la acteur passible yi nga xamante ni nag ñu daal di toppandi mbir mi lee foofee ca cour pénal international nationale li soxal mbirum Ousmane Sonko ci condamnation bi nga xamante ni dat nañ koy condamné ci bile dossier suite beauté bi nga xam ne nag moo daal di woon a dox si moom ak Adji Sarr ñu daal ko ci war tëdd kii di Ismaïla Madior Fall di ministre de la justice daal di yëkkatiwaat ay kàddu mu daal xamle nag bi condamnation def définitive ndax nag moom Ousmane Sonko dañ ko daal di condamné par ci ab peine deux ans ci bile ci suite ba tey Ismaïla Madior Fall daal di xamle nit yi di Ousmane Sonko amoon na li nga xamante ni mooy possibilité ngir daal di def anéantir ci bile condamnation bi nga xamante ni nag ñëwutoon présenté wu ci bile procès moom leader bu Pastef nag ñu daal di woon ko condamné par contumace ci premier juin ci coowal suite ba tey nga xamante ni moo doxoon si diggante moom ak Adji Sarr ñoo di woon ko ci at deux ans de prison ferme yoo xamante ni nag a daal di xamle ni moom leader bu Pastef nekkutul ko xamante ni dinañ ko daal di jugé waat ci bile condition boo xamante ni daal di nay reconstituer donte sax daal nañ koy arrêté ci beneen mbir boo ni rek bokkut ak ci bile ci problème bi nga xamante ni nag daal na koy am ak kii di ex masseuse mi di Adji Sarr ñu daal di àdduna wax li ci lu jëm nag mbiruma Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ni nag daal woon nañ ko teg loxo gannaaw nak deux mois de détention waaye tamit mu daal woon si boole li nga xamante ni mooy grève mile di Cheikh Bara Ndiaye mi nga xamante ni nag mu ngi woon ca réanimation ci hôpital principal bu Ndakaaru jamono ji nag dañ nay am tan bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci avocat mile di maître Moussa Sarr moom mile nag mu daal di xamle ni jamono ji dañ nañ ko yóbbuwaat ca pavillon spécial gannaaw rek bi mu xamle ni jamono ji mu ngi am tan bu baax a baax ci naka noonu avocat mile di maître Moussa Sarr daal di woon xamle ni nag moom Cheikh Bara Ndiaye daal rek ñu koy daal di transféré foofee ca pavillon spécial ci lu jëm nag ci élection présidentielle 2024 ñu dégmal ci lu ñeel nag kii ak Karim Meïssa Wade jamono ji nag ñu daal wax ne rek bile candidature am leeragut benn yoon ndax nag double nationalité bi nga xamante ni rek jamono ji dañ na indi ay polémique ci ci kujje bi ñoo gis ne nag gis-gis askan wi daal di wute loole ci lu jëm nag double nationalité ci moom mi lee di Karim Meïssa Wade mi nga xamante PDS jamono ji nag bu ñu sukkandikoo ci de quotidien di xamle nag ñii di waa conseil constitutionnel woowaat nañ leen ngir nag ñu daal di arbitré mbir mile ci leneen ba tey ci seen actualité accident bu métti bi nga xamante ni rek daal nay am big si guddi nag ci autoroute Ila Touba bi nga xamante ni ñaari nit daal nañ si ñàkk seen bakkan ci nak noonu tamit mu daal di am ñoo xamante ni daal nañ si jëlee ay gaañu gaañu ñu ay naataango di waa APS ñoom que xamuñu matriculation bi boo xam ne moo doon circuler ci diggante Bambey Diourbel oto boobi nag dafa saaraan ba daal di daanu am si ñaari nit ñoo xamante ni daal nañ si ñàkk seen ay bakkan ñu daal di koy jeexale ca diwaanu Gabon gannaaw nag coup d'état bi nga xamante ni yile militaires yi fa fare daal nañ koy def kii di Ali Bongo nekkoon bopp réew ma Gabon moom mi lee nag jamono ji ñu daal di koy placer en résidence surveillée waaye nag moom mi lee jamono ji mu ngay daal di ni ji gisul ki nga xamante ni mooy soxna ma sile waaye tamit ñu daal a tëj waaye tamit ñu arrêté ki nga xamante ni mooy doomam moom mi di Ali Bongo jamono ji mu ngay daal di woote ab wàllu